secret bi bokk na ci actualité bu nekk nga ànd ak moom parce que bu fekkee ne dañuy wax waxu football xew nga nekk di waaraate ci benn domaine boo xamante ne du lu nekk en vogue su boobaa dañ la fay bàyyi mais kolos bu làmb ñëwee mu wax ci teg ci lu méngoog làmb su football ñëwee mu teg ci wax lu méngoog loolu même politique bi bu amee ay affaires yu garaaw mun naa bañ a wax sama xalaat mais mooy teg ay son yoo xam ne day méngook li nga xamante ne loolu moom moo am loolu tamit ci kolos la bokk. waaw waaye secret yi dinaa ci yokk dara mooy euh, musique du rek bi jay laa woy nga teg ko bi guy woy wala euh, bastum nga teg ko noonu non wuti boo xamante ne live la su ko defee ñëpp. bu bees bi li ñuy jël teg ko noonu yow nga am bu live am ñëw jam ko su ko defee yow dangay ngay particulier par rapport ak ñeneen ñi da ngay dem ba nga xamante ne tey buñ la tegee dañ boo tegee daal dañ naan li nga teg nii o ci kolos rek nga réew day indi o bi loolu bokk na ci kolos non duma capitaine parce que capi brassard ñu ngi koy takk mais gauche hmm? xëy na euh, li may takk boo ma ne woon lan la dama la koy tontu mais yow yaa ko tontu merci beaucoup bàyyil ba beneen yoon parce que tey yaa ko wax. <laughs> mais lii ko ci ñëw bi ko bëgg football laa. Hmm. buñ ne capitaine dañ naan ah li ma bëgg football moo tax may takk brassard. mais C mun na sur euh, signifier leneen. Hmm. benn mun naa jox ñaari indice. benn bi mooy euh, corona bi mu xewee. Hmm. ci laa ko commencé takk. kon C bi mun na signifier corona waaye du loolu deuxième bi leb naa ko. deuxième bi leb nga ko di décroche animation léegi mel ni aspect folklorique bi moo gën a dox. Mhm. DJ yi bu njëkk ay mélomanes la ñu mhm. xam mhm. mais léegi on a l' impression que DJ yi léegi ay wayaane lañu wala ay communicateurs traditionnels. qu' est ce qui fait ça. li ko def mooy DJ yëpp suñ bokkee même ligne du neex bala moo neex dëgg mu wóor ne heure bii. voyaneur ba mooy doxal nga dem déglu ko ak ni muy voyaanee heure bee am na koo xam day teg musique di ci topp ni mu koy defee mu nekk lu spécial beneen heure bi am na koo xamante ne day teg musique bu introduire dootul wax ba keroog morceau bi di jeex beneen animateur bi nekk koo xamante ne lu ñor mu wax lu ñorul mu wax kooku tamit am na ñu koy déglu loolu moo waral que yéen DJ yi fekkoon na ñaara fi nekk comme bu njëkk nga xam ne ñett DJ ñoo fi nekk Michael Souma Simon Meledge euh, déedéet euh, yooyu juddooguñu woon euh, ak Aziz Coulibaly nga xam ne ñoom ñett jëkk ñoo fi nekk nga dem mu yàgg nag mu nekk kolos daanaka moo ñëw tegu ci après loolu toog nañ lu yàgg ñeneen doog a ñëw xam nga mais DJ yi comme bari nañ ku nekk ak feemam feem yooyu nag moo waral tey buur ngay dégg façon animation bi ak bee ak bii ak ba ci mais bu ci sikkal benn xam nga daal mm-hmm. démb ci guddi déglu naa rajo XFM nga xamante ne xëy na rajo boobu fréquence bi yaatawul mais am na booy bu fa doon teg ay rab no au school rap yu yàgg yi. Mm-hmm. morceau yu ma neex te yooyu man amatuma ko. mais dama ci kontaan jëm ko woo mais ndekete man ligne laa def sama téléphone mënul woo serveur pour lan félicité ko te man kontaan naa te su ma ko jotoon xam naa moom dina kontaan trop. Mm-hmm. moo tax war a animation yu wuute am solo. te pourtant ñooñu des fois yàq seen li ngeen daan def wala xëy bokkul ci animation. si ci la bokk xam nga ngénte hmm. animateur ba mooy jigéen ji ñëw wala tuur sax ñëw tagg borom ngénte bi wala ki ñuy marié wa ah, wala maam ji ñëw tagg ko nga gis mu jël benn billet jox ko hmm. donc loolu animation la parce que man fekk dañu ma animateur musical laa. kon ci musique rek laay yem mais animateur rek ngay dégg kolos animateur donc lan lay animé li xew tey sa plateau bi mu tok animé ko wax à ma façon à ma manière léeg-léeg ma dédicacer ñepp xaqataay bu fekkon du won micro live xam nga lolu ci animation bokk moo tax woyaan kooku noonu la ko gisee bàyyi kook noonu man gisee naa ko neneen maanaam mun naa ne ah du ma Samba Mbayaan kenn damay dédicacé tout court comme auditeur la yàgg naa man et cetera xaaruma dara parce que am na tey ñoo xamante ne ñi ngay yaakaar ne dañ leen di woyaan yow mi koy animel xëy na sax yow yaa ko ëpp xaalis waaw soxlaaloo ko dara mais dafa defoon benn geste mu rafet comme benn théâtre mu jantal ci

sa coordinateur bàmba daf ma woo takk ma ne ayca ok te pas matul ñetti fan am na ñu bëggoon interview fukki fan am na ñu ko bëggoon moo ko toppee noonu la ba TFM bi nga xamante ne tey su ma fa demoon ñu wane ma ma wax mais man maa nekk ne nit koo xam nitu rajo benn ñaareel ba mooy yar ci sama bopp pour bañ fu nekk ma fay dem même bu ma doon dem soirée buy am nii ñu koy coow doo ma gis wala boog ñi may gis du bari ndax du ma dem pour yël micro pour wax te bu may duggee duma ma toog fu flagrant fu gën a ruqi laay dem toog pour observer ñëw toog nettali wala ma denc pour ëllëg loolu mooy kolos waaye nekkuma animateur boo xamante ne damay nekk chaque fois ku ma tàllal micro ma wax ku ma tàllal caméra ma taxaw ak moom wax. da koy dund parce que ñun buñ toogee xam nga lan mooy euh, nit kuy làqatu bokkut ak ñun ndax da ngay animer depuis des années tey jii ngay animer du teg sa tur Colosse yaa ngi wax sa bopp pour ñu xam la yow la. waaw yooyu noonu ngay dugal noonu tamit mooy yaa ngi wane ne man la maa fi ne wala sama tur xam nga moo tax bës boobu da koy dund mais ak à sa façon am na lu ñuy wax. Euh, nombre de vies tu Boy def live mon mhm. man gëmuma ko parce que man dama am auditeurs yoo xam ay taximan lañ mhm. ay euh, ñoo pour dem ci internet di cliquer mhm. ñu l'a ëppale ñu parce que système bi may la laaj nga ma internet mais ci buy daw wala ku toog wala ñu déglu colosse bu baax a baax. Colos expérience bi mu am boo doon xool ci wàllu casting. Mhm. télé bi tay il y' a pas meilleur que Colos. Mhm. lu colosse mo opté wul pour animer une émission à la télé. Mhm. Euh, loolu remarqué na ko ci Colos remarqué na ko aussi ku ci mel le doyen Ablaye Diop. tay qualité bi ngeen am. macha allah. yéen a opté wul pour faire ci télé bi wala dañ leen fa ubbilul place. bu baax a baax gis nga tey suñ directeur des programmes de la tele léeg-léeg ñu woo la ne Koros loo xalaat ci projet sàngam pour nga ñëw bokk ci nàngam mu ne ko waa dinaa la rappeler du ma ko rappeler parce que ñoom am nañ plusieurs person yu toog boo ko rappelé tey day xalaat keneen ki parce que xam na ne intéressé wu la da ngay bëgg dem ba am am yenn âge yi comme nga am âge Ablaye Diaw bu waa na nga dem ne faax ci télé bi pour def démb ndax fekke woon nga ko mën nga cee wax mais moment bi dafa nekk moment boo xamante ne do opté trop pour figurer wu ci télé ak lu mu mënti doon moy moy mit bi mit bi xam nga tay radio bi may animé di lundi au jeudi tout court vendredi samedi dimanche ken duma ma dégg wéru koor bi yépp duñ ma dégg ah loolu baax na ci day tax yow li nga am ci ay musique di ko génne du lamb du late du sàppi nopp li ngay wax sax day am loo xamante ne tey dañ koy pour nga indiwaat ko mais bu fekkee ne di leen di au dimanche bu dul rajo di télé mun nañ la gis ñu ah suba naa ko déglu wala nga def temps boo xam ne dafay gudd boo xam ne ki déglu mun na bañ a yàkkamte parce xam ne du jeex léegi. sa proximité su ma ko woowoon léegi du sone ñaari yoon mu ne ma los ko affaire léegi nag beneen affaire bi moo dàq man maay ki nga xam ne lu ma neex laa koy wax. ci lo xamantene rakam rakkam xaritam employé am ñemewuñ koo wax ci walu kaf bo xamantene sax day exagérer waye man duma dem vers nit tout le temps parce que man damay xaar mu soxla ba ay ca ñu liggéey waaye du ma nekk koo xam ne damay naan lii yomb na ma rek dama dama ko exploiter mais man Youssou Ndour en personne euh, du fii ba may en 99 ñi ma ne kaañu liggéey ci laa bokk bi may ñëw fii ñi ma woo moo nekk ci ginnaaw bi ma fii ñëwaat biñ ma woowee tey suba ëllëg ngoon dama toog naan waaw waaw waaw waaye bi mu yëkkatiwaatee téléphone wax ak man ci fulla ak fayda ci laa ne ko ah kon nag sa waay dogu na kon moom bokk na ci ñi nga xamante ne kolos ñor na ko pour muy liggéey ak moom waaye moom tamit dafa neex a liggéeyal. ça correspond au waaw man nag duma ma wéeru samay mbir yeeg ci rajo man am naa beneen liggéey bu dul rajo. Mm-hmm. parce que boo bëggee tabax R plus huit ah, mm-hmm. du rajo moo la ko mën a may. su fekkee ne bëgg nga am yenn yoo xamante ne danga koy bëgg a réaliser ci sa njaboot ak yu ni mel. du rajo rek moo la ko mën a may. Mm-hmm. moo tax wax dëgg yàlla liggéey bi boole naa ko ak leneen leneen loolu sax xëy na moom moo ëpp solo ci li may def ci rajo ci wàllu koom waaye sant yàlla parce que rajo tamit bokk na li gën a liggéey ci sama carrière. kon loolu tey baax Wally Seck Sidy Diop Pape <laughs> buur est-ce que ne loolu ah euh, dama koy bëgg xam tax ma koy bëgg parce buñ nee. diw ak diw dañuy concurrencer am nga événement événement boobu nag ci ngay profité ñu bàyyi la xel mais su fekkee dafa loow rek ah. kenn même loow maanaam amul xeex du neex mais cooki dafa neex waaw cooki bu neex ngay toog di toog fee di seetaan. waaw léeg-léeg nga àttee à ta façon ku am dégg-dégg xam ne kii nga faral wala boo bëggee jam kenn kii ki nga ne nga jam ko mm-hmm. waaw. xale yi koo ci a yan góor wala jigéen. jeune talent mhm. wax dëgg yàlla moom ma gën a yéem. pourquoi parce que moom benn charisme am musique ak ni mu opté étape sur étape. Mhm. waaw ni mu ko tegalee. Mhm. noonu moom macha allah parce que loolu la ñuy wut ku waxal dëgg fii da gis ne moom spectacle yi muy teg yëpp ah, ku ko fekkee dinga nga bokk. kon gëm xam nga loolu ku nekk ak euh, Alioune Mbaye Nder mu defoon fi loo xam ne lu ne weng abu ci bolo mu def fi lu ne weng ba ci sax euh, Fatou Laobé sax ay jamono moom la ñuy déglu yëpp dafay nekk ay étape rek ay épisode la mais ëllëg moom ah kenn xamul parce que du affaire futur mbalax am na leneen mun lu mën a génn loo xam ne du affaire mbalax mais mun na nekk leneen loo xamante ne lu ñëpp doon xaar mu nekk lu bees waaw waaw dafa mel ni kon suba day fubal ah. waaw suba day fubal mais nañu sóoraale ndam ak ñàkk ndam bu ñàkkee ndam li ñu gore bañ a yàq dara suñu amee ndam tamit alhamdulilah allah kulli xaal bu baax a baax 2-0 wala 3 en ak mu ko bëgg pour le Sénégal. jërëjëf content ci waa Dakar Actu surtout buur mi ànd ak ay techniciens yu mat li ñu doom